waaw salaamaaleykum waa Sénégal donc damay profité ni ci occasion bi di féliciter le président de la République Macky Sall ci taxawaayam ci inondation bi ak tournée économique bi nga xam ne def na ko euh, dem seeti sénégalais yëpp. donc mu ngi wane ni sénégalais yi confiance bi ñu am ci moom ba fal ko moom am na yërmande ci sénégalais yi beneen bi ci topp mooy président dafa génn bërki démb mu ne il est prêt pour fair ay débat ak ñi nga xam ne dañu bëgg a wax ci affaire inondation. président wax ko tey ñu gis Ousmane Sonko tëb taxaw ni man je suis prêt moom depuis deux ans maa ngi taxaw ni ko na ñëw ñu def débat télévisé parce que li muy wax yëpp man mën naa ko démonter pièce par pièce parce que li muy wax yëpp dara du ci dëkk parce que dëkk soo ko bëggee taxaw di wax diw sàcc la diw jël na lii diw yomb na lii tey ji yaa ngi taxaw nga ni Mansour Faye dañ ko woo of nag mu bañ a dem yow assemblée nationale daf la fi woo nga ne doo dem di wuy ji ay ay ay député te pourtant député comme ñoom te yow ñoo député yooyu sax ñoo la gën a valable parce que député yooyu dañu jàll normalement yow plus foros nga jàlle ñëpp a jàll ñu dem ci mbalit mi jël des ci carte yi pour pour nga jàll nga taxaw assemblée wala nga ni doo leen wuyu tey nga taxaw nga ni par forcement Mansour Faye dafa war a dem wuyu ji OFNAC on ne peut pas vouloir une chose et son contraire donc tey jii ñi sa moroom nga war a debaa ak ñoom ñooñu nga war a débaal man depuis deux ans maa ngi taxaw di wax Ousmane Sonko na ñëw ñu débat bu ñëwee ñu débat télé une une heure de temps ma démonter li muy wax yépp parce que quelqu'un boo xam ne nee nga yow da nga da ngay jiite part da nga bëgg a jiite Sénégal ñu invité la à la télévision Sénégal yëpp di la seetaan ñu laaj la société boo xam ne yaa ko créé ngeen da nga ko fàtte kuy fàtte société boo créé ñun dinañ xalaat ñu jël suñu dëkk di la ko dénk ça veut dire que ni loolu escroquerie la mënoo créer société ba pare da nga koy fàtte donc nag Ousmane Sonko man Mame Gor pour nga ñëw ñu def débat président du sa moroom boo xam ne dafay génn di taxaw di wax nga ni yow da bëgg a dem def débat te nag Macky saal moo ñu tooñ moom mi taxaw naan na ñëpp ñoo ñu def débat yi dañu am ci yow confiance dénk la suñu réew nga mate ko sëkk di ko liggéey ñi war a wax bàyyil ñu wax ak ñoom yow ña nga war a wax ak nga wax ak ñoom Ousmane Sonko nag su fekkee ni li wax dëgg ci moom na ñëw ñu invité ñu mën ak moom TFM wala RTS wala télé bu ko neex ci àddina bi ñu taxaw en une heure temps ma transformé ko nen zéro wasalaam merci